directeur du cinéma très bien ñooñu a a jàppale acteurs yu cinéma yi nekk Sénégal ba xam nga attention ab tubaab bu jógee bitim réew ñoo naan ñu ñuy bi ko def ndax na lu ñuy développé ñun ñu nekk suñu réew ñoo nu mën a jàppale ñun ñu développé li ñuy def bañ a ca biti gis ko bëgg ko soxla ñu ca ministre beeg ñoo ñu des affaire cinéma ñoom ñoo war a jàppale jeunes yi def cinéma ndax dañu gis cinéma bëgg objet wu ca kon vraiment a nañ leen mën a jàppale soutenir leen subventionné leen produire leen génn xaalis yi ñuy maye ci ay soraanoo yu ñàkk yi ay tànn biir ak ay ndaye la kenn xamul ministre taxaw fay baax rek mais gis ay jeunes yu mobilisé wu di def cinéma di def lu baax pourquoi pas ñu jàppale même si di que yow ñoom tuddee leen daal ñoom boo leen tuddeewul dara ils s'en fout te c'est pas normal quand même artistes yi ñoom bu ñu leen tegee ñu ne place daa am ñu tax ñu teg leen ña tax ñu teg leen nañ gis seen bopp bu baax ca Ciné.